koro gay molum gej Oh, haj ibrahim gay tejtal mo dak ci lepp taxna dg lelatul khadri ba ni mo nga ci yoon wi lile tax tay jile koram mu fas hene motal ko sunu borom tutural ko ay matukaayam yep dal dina ka jël waye xolam moo neexut nde saxaaru poosam moo diisut madam gay kontanut, li elem bopam, taxna dg jappu julli ñaari rakam comme amul ay dog yu ñu ko jox dox DG mooy sëriñu boppam mu tee kurusam di ñaan rek asafrala asafrala asafrala toog tuuti rek yeddaat boppam am man asafrala ba ka jëratu ko man kay xaalis laa soxla o oh, ci la tee kurusam di koj ko ci xaalis xaalis l'argent xaalis l'argent xaalis l'argent moo nga ñàkk tooy xepp mébétam lépp mooy xaalis bi dikk tudd na ko ay junne yoon xaalis comme du dégg wuyu ko tax DG dagg kurus gi kanamam gën a diisati boo xumala xanaa ku la waa nga wuyu <laughs> lu man ñetti waxtu xaalis gis xaalis tawoo kenn après wut sama gàcce tey ji bu ma ko jëmee <laughs> xalaat ci xelam ne mën naa am daa juum ku soxla xaalis euh, sunu borom bi ngay woo ne xaalis euh, du dégg DG mu tàmbaliwaat lay lay la lay lay lay lay la la oh, Ibrahim na muy wax rek courant bureau dal di ne tëf DG fi tax na <laughs> wérdatuma ay <laughs> sunu borom ma laaj la xaalis yónnee woo yàlla ma wala benn ñaar rek nga nar dikk banaa banaa o oh, DG du loolu soxla tax mu génn biro ba ci la ñëkkal xar kanam ki bënn bët yi <laughs> xajul ci gàcca ku ñëw laaj ko lu muy jooy rek euh, DGPM la. dimbale ma toppaloo la seen affaire baleen ma te leen la ñu dindi problème waay. yéy oh DG. fu waay toll dégg jooy yi. madame Gaye yegg si. ah El Hadj Ibrahima loo jooy. waa jógal li ngay jooy xam naa ko waaye dama la doon seetlu rek. ren noppal naa la. li war ci mën ak njaboot gi yépp wàccel naa la. xoolal ñaari jasineer yi yaay boroom. ñëw noonu ko ba pare ànd ak ñaari marakis marocain ñëwal naa xale yépp lépp mat na laajatuma la dara waa réel DG eh, madam <laughs> madame Gaye waaye léegi Alaaji Ibrahima lenn rek a des te yaa ko war a génnee buy muurum koor sànq laa ci doon diisoog Cheikh Babacar mu xamal ma ne génnee muurum koor farata la te jullit bu ne moo ko war génnee ndaw ba ci mag te borom kër moo ko war a génneel njabootam yépp na gën tey jilee mën nga koo génnee jëm ba imaam di julli ne bu kat xamal na ma ne pepp lay doon lu ëpp ci lu waa dëkk bi di dundee ñu xayma ko ci deux kilos cinq cent wala sax nga natale ko ci xaalis ngir bañ mu manqué mille francs par bopp te kat néew ji doole ji lañ koy jox ki gën a jege gën a yeey xanaa loolu mën nga kaa génne DG <laughs> waaw waaw o oh, xaaj Ibrahim Gaye koriteem tàmbale na di neex ne xolam daal dinay féex doonu jafe-jafe yi mu yenn woon yéen nekku na ko DG muy ree rek <laughs> ODG noonu la nekkee ba 18h jot Haj Ibrahim ci la lawale ci étage ba côté bu ne mu teen di séentu weer walay loxarti soppi ay lonet boole kooku yu xoolu noonu la nekkee ba waxtu dog jot madame Gaye dikk waa Alaaji Ibrahima yow daal nii rek séentu kay da nga waroon bàyyi ba timis jot waxtu ak genn wàll yi nga doon taxawaale fi yëpp coono la waa am tàndarmaa ngi nga dog sa koor gi baal ma ak o oh, Haj Ibrahim daal di dog daal di baal mbokk jullit yëpp ak want dewanati